ci poste de santé bu Daaru Salaam bu sëriñ Cheikh Anta la soxna si di Ndeye Astou Ndaw Wasine yàlla jox ñetti cheikh. waaw man man maa ngi maa ngi tàmbali mu bi foofu laa ñaari visite la ñu fii war yaa fekk saa te mu doon lu ko baax jàppale mu torop seexee nag gannaar gi bu ma defee kii bu ma defee écho wax nañ ma ne ñaar seex nga ëmb waaw ma ne ba si kanam noonu suur bi ma war a amee doon noonu si laa defaat écho ñu ne ma doomi ñett la suróog saarta mi moom mu ne ma yow xam naa doo doo mën a ako see fii waaw si laa yegg si ko gën a far si mbir yàlla ma yegg si laa matu ma ñëwee ti mu doon jàmbaar trop jàppale ma trop maa ngi ko yar suñu Fall Mbacke leen bëgg ci sage femme bi la yàlla jaarale mbir mi ci ay loxoom ne moo réewle soxna si taxawu ko saarate jéeme mi bi mooy ñetteelu yoonam muy taxawu jigéen boo xam ne yàlla mu koy jox ñetti doom nii lii nii di am fii nii xëy na comme ni mu ko waxee yàllaa ko jaarale fii mais ak ñoo ci wasuloon sunu aax di bëgg sax ñoom ñu dem ci hôpital yu mag yi pour ñu dem amee fa doom mais yàlla dafa dogal fii milieu bi ñu nekk muy Daaru Salaam sancaan yee ñu wër mbusóobee moo ñu wër te yàlla def na ah yàlla xam doy na ñoo ngi sant bu baax a baax a baax waaye tamit ah dafa laaj nag ndimbal na population bi am na ñoo xamante ne yàlla daal dañuy ñaan yàlla daal ñu dimbali ñu ci rawatina tey jii ne ci ko mu dal. triplé ki nga xam ne yàlla def na muy mu am ay ñetti seex kooku yaakaar naa ne du loxo bu nekk la ko yàlla di jaarle kon ñu ngi ko si sant di ko si ndokkeel di ko ñaanal barke boobu nga xam ne yàlla defal na ko ba mu jaar si loxoom du benn ñaar ñett te xam naa du yem fii di ñaan barke boobu yàlla nekk barke boo xam ne day sax abadan wa daay man waaw ñaanal yaay ji nga xam ne moom la yàlla defal xewal bi ndax aussi la yàlla di def ay triplé ba ñu génne si jàmm ba ñuy mën a dund si jàmm di nit ñi di leen xool donc di ñaan jumeaux yi yàlla na yàlla defal leen ñu gudd fan ñu barkeel dem ba def leen parmi les décideurs di pays yaa ji nga xam ne nag si moom la ko borom bi subhaanahu wa taala jaarale di ko wax na gën a góorlu ndax du ku nekk aussi la ko yàlla di may. bàjjanu gox bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi béral na ak cant jëmee ci sage bi ak ICP bu poste de santé bu Daaru Salaam ci nit ñuy taxawoo askan wi. ndax euh, sage-femme bi yàgg na fi El Hadj Boy mi ngi fiy door a ñëw mais comme mooy chef bi moom la ñuy njëkk a ndax jigadiwuñu sage-femme bi nag moom dañuy ñaan àdduna bépp ñaanalal ñu ko ndax lii mooy ñetti yoon yoo xamante ni am nañ ko ay triplé te ñun buñ dee ñun ñooy bàjjanu gox bi ñun ñoo nekk ci dëkk bi ñoom këyit li ñuy li ñuy wax rek toujours ay étatique lañ dañ leen di affecté ñu ñëw fi tey suñ doon ñibbi du ñu indi dara du ñu yóbbaale dara li ñuy ñaan mu di fi dikk lépp suñu ñibbi ñun lañ koy bàyyee kon ñu ngi leen di ñaanal seen liggéey yàlla barkeel ko. Ndeye Astou Ndaw xamle ne boroom këram jàmbaar la lool ndax mi ngi koy taxaw bu baax a baax waaye dafa néew doole te soxla na ndimbal mu koy sàkku ci mbooleem kilifa yi. sama borom kër wërgu yàlla jàmbaar la nangu naa li kenn nangu na maa yor tamit waaye nag am-am bi moom day wut noonu na yàlla suñu borom kenn ku ne loo teg sa yow moo xam ne te tege waaye moom nangu na ko torop te yàlla jàmbaar la waaye nag amul doore ku ñuy jàppale gi moom wax dëgg yàlla ñun xéwin leen ñun kay nu mën nu a jàppale rek baax na ñu bàyyi lépp si loxo saarata moom ndax ñaari doom si doom dafa laa ndimbal jël na ñetti doom te daal moom wax dëgg yàlla yaay ji de mi ngi nii moom mi ngi sant de ndax suñu borom moo ko teg te mi ngi koy nangu waaye nag bu gënoon a am tam ñu ko jàppale muy bon volonté yi mu gel ñun tamit poste de sant bi ñoo ngi sant ñi fiy liggéey ñi liggéey ak ñun ndaxte dëgg la ñun ñaax leen fi affecté mais ñun ñu booleel tamit ñu mat a sant lañu ndax ñoo ñuy jàppale guddeeg bëccëg sonnuñu ci benn yoon waaw. Daaru Salaam ak mbooleem quartier yi nga xam ne ñoo ko wër bari na lool ñuy teewoo ndimbal loole bàjjanu gox bi di ko fàttali kilifa yi. ñun ñi nga xam ne ñooy bàjjanu goxu dëkk bi sol suñ dàll di dugg ci dëkk bi ndax fii dafa bari ay cas social kenn ku ne xam na ne fii bari na ay cas social lii li koy indi mooy war a def éco sax te amoo moyen boo defee eko ndax boo defoon éco ci premièrement ba di nga gis lii mais comme amu mënoo ko te yàlla mooy kii maye te mayu la te nangu nga ko kon bu accès ba fii ñun liñ man mooy ñun en tant que bàjjenu gox sol suñ daal jàppale la jàppale gi nag dañuy sol suñu daal tàllal loxo ñépp soxna Ndeye Astou Ndaw santaat yàlla bu baax a baax ci li nga xam ne moom la ko jox muy ñetti cheikh waaye tàllal loxo ñëpp ci ak jàppale ndax yore ñetti cheikh yombul rawatina seenug dund ak li ci aajow